ci ndaje caada bu ñu amal fii ci Dakar te ñu tuddee ko biennale Eden ak Innov Africa ñu daal di organiser benn exposition ngir fësal seen liggéey ñu daal di ko tuddee essence ak résilience ndaje bi nag lu tolloog juróom-ñaari artistes africains ñoo si daal di teew juróom-benn yi ñu ngi jóge fële ci Bénin kenn ki nag moom mu ngi jóge ci Gabon ñëwoon fii ci Sénégal ngir fësal seen liggéey. Notre objectif était véritablement, d'une part, de participer aux offres de la biennale, mais aussi de proposer un parcours différent, authentique, et surtout de créer des ponts en cette, entre cette Afrique des cultures et de permettre à des Béninois, à des Gabonais de venir proposer leurs œuvres et présenter leur art au Sénégal, dans le pays de la Teranga, euh, aux Sénégalais, mais aussi à l'ensemble euh, du public international qui est là dans le cadre de la Biennale. thème exposition bi nag di entre essence ak résilience daal dina tekki lu bëri si ñii nga xamante ne ñooy artistes yi ko def. à travers euh, essence et résilience Eric Medida a essayé de retracer un peu euh, l'histoire sur cet héritage immatériel que nous détenons dont que nous n'avons pas encore réapproprié cet héritage que nous avons rangé dans les placards en tant qu'Africains Aujourd'hui où cette Afrique se veut se révéler aux standards internationaux, il est important pour nous de repartir à la source. exposition peinture ak sculpture yi nga xamante ne amal nañ ko dafa permettre artistes yi ñu daal di raconter ay histoire ak i tamit partage li nga xamante ne moo leen inspiré gannaaw bu ñu fësalee seen liggéey nag artistes yi ñoom ñu ngi wax ni histoire Afrique mooy li nga xamante ni moo leen di inspiré ndaxte ñoom lu ñu gis mooy dañoo war a gën a sukkandiku ci suñu gën a mun a préparer suñu ëllëg. Celle que je porte très haut, euh, c'est euh, Madame Owanto, euh, est engagée euh, à travers sa série Flowers euh, contre la lutte contre l'excision et nous propose, et vraiment j'invite le public à, à venir voir, tout un parcours tridimensionnel avec une expo audio, une expo d'art visuel, mais aussi euh, euh, une série qui s'appelle Pardonne-moi, qui est une série de tissage euh, qui, permet, qui a permis à des femmes sénégalaises du Nord de pouvoir s'exprimer et d'expliquer un petit peu leur trauma. diggante ñaar fukki fan ci weeru mai ak ñaar fukki fan ci weeru juin juróom-ñaari artistes yi dinañ nekk fii ngir exposer seen liggéey ci biennale bi nga xamante ne mi ngi am fii ci Dakar ngir ñëpp mën a gis seen liggéey bi nga xamante ne mi ngi wax ci jafe-jafe nekk ci Afrique.